dogs what up dogs hi everybody shout out maa ngi bëggee ñëpp you know what I'm saying di bëggee sama moom nag booy sant bi moo garaaw quoi nga nen na nag Ndiaye la filo ah sama benn commune quoi moom ndax ma cat yëre bi laay jël quoi moom bëggul feeñ quoi bon tey tey sama gars yi ba maa ngi shout out ñu ma dëkkal sama dëkkandoo yu baax yi sama hairdresser Pam Ndiaye ñëpp quoi minute laay bañ mu jël parce que tey lettre Macky Sall laa koy bind quoi tu vois lettre du président la quoi bon tey fi may tàmbalee mooy euh, président avant tout quoi ñu ñaanal fan bu gudd ñu ñaanal nga wér parce que tamit ñoo la choisir tànn la biar campagne voté voté ma la Ablaye Ablaye Wade laa voté loon mais la majorité de l'emporte ñoo la tànn teg la si yoon nañu jox la cër ñoo la cër bi nga moom quoi parce que tamit njiit dañ koy jox cër quoi yaay première institution bi tu vois di la sant tamit ci affaire yi ngay def nii mooy terre bi initiative nga jël ter, train tu vois jëlee fi saxaar indi benn terre même même bien vrai que guddul mais initiative quoi tu vois initiative arène nationale bi euh, bien vrai que prioritas priorité trop li mau priorité nggak nggak nga nga faj euh, nga indi fu Sénégalais di fajar fu sénégalais yi liggéeyee que fu ñuy bëree ay football bien que loolu baax na quoi salle omnisport baax na trop mais doon priorité quoi doon léegi nañ ko solo quoi mais loolu quoi léegi nag bàyyil xeer yi ñëw président li ma lay laaj nga tontu ma laaj mooy maanaam euh, ñun bi fi Abdoulaye Wade di jógee dañ ñëwoon Abdoulaye Wade sa doo fi doo fi jógee teg fi sa doom quoi maanaam du fi jógee teg fi Karim Wade ñun sénégalais yi loolu lañu waxoon ko mais bu ñu xoolee ñun dafa mel ni yow euh, président loolu nga nga defaat quoi maa ngi ñëw léegi loolu si loo ko defee quoi mooy yow maanaam tey bu ñu xoolee Aliou Sall fële sa Guédiawaye président foofu noonu li Ablaye Wade def rek nga def maanaam fii mairie la fële président la parce que bu ñu xoolee maanaam tey ji man mi dëkk Tëngéej man su ma dëkkee Tëngéej mais mënu ma jógee Ndar mënu ma dem Ndar ne man maay nekk maire Ndar wala maay nekk maire Kaolack du ma ko def mais li tax Aliou Sall Aliou Sall am pouvoir boobu mooy yow yaay président nga nga nga nga teg nga mu sukkandi si yow mu mu mu jàpp fa waa Guédiawaye ma leen blâmer quoi parce que tamit tey ji ni ko xiif ni ko xiif mar ndóol Aliou Sall indi bu tabaski jotee mu indi fa ay camion xar bu maire bi ñëwee mu ne naan promettre ay embauchement ay contrat léegi ñoom dañ koy dañ jaay seen ngor ñoom waa Guédiawaye pour moom mu ñëw nekk fa ko weesu mais xam nga kuy beneen bi may laaj monsieur le président li ma la président avant gis ah, ah, euh, ngay di Karim di ne parce que daara jaar quoi charité bien ordonnée commence par soi-même man li ma xaar président mooy maanaam il jii yow ne Khalifa président on dit avant président yow yaa ngi noonu loué côté ba leneen mais moo xam côté Nord Foire côté yooyu noonu quoi tu vois yow da nga loué avant nga nekk président en notre grande grande surprise nga nekk président bi nga ñëwee nga déclaré ne am nga huit milliards ah président ñu laaj ne yow balaa ngay càmbar keneen kay da ngay càmbar sa bopp léegi yow huit milliards yooyu noonu huit milliards yooyu ñun di bëggoon laaj nga ni sama huit milliards yi kat fii laa ko jëlee bi ma nekkee DG Petrosen dama dajale un milliard bi ma demee fii ak lii parce que tamit mënoo dóor doomu jàmbur yi ndax xaalis bi ñuy jël seetul te yow sa xaalis yow ne nga yow kenn du ci wax wala yow yaay président nga baal ma damay laaj rek quoi damay laaj président ma loolu dafa xaw xajam léegi beneen bi may laaj président

daawul daawul def euh, fondation pour servir le Sénégal fu ne mi ngi may xaalis léegi may laaj moom moom sa soxna si Marème Faye moom xaalis boobu fu mu koy jëlee ndax c'est le contribuable sénégalais parce que moom doonul doonul pétrole doonul ay suuf bi ngay opposé wala bi ngay nekk si nguur gi ne président assemblée sax daful servir le Sénégal léegi nekk président mu servir le Sénégal ku ko neex mu may ko ku ko neex mu may ko léegi xaalis boobu ñooy laaj comme mooy coowal Karim Wade na nga ne càmbar nga dóor Khalifa Sall mii nga jàpp dóor ba sa daa wax bañ wala doo ko oo moom mu càmbar loolu noonu sa problème bi wala ku ma am ndey ku ma amul ndey la monsieur le sama xel bi mooy loolu bu ñu ñëwaatee tamit kii élection yi passé avant mu ñëw Lonase Lonase il paraît que sa benn copain moo ko yor moom moom takk na fi jabar may fi ay 4 4 ay parure or te ba léegi LONASE boobu te LONASE boobu nee nañ moo ko moo financé campagne Sénégal euh, campagne Abdoulaye Wade bu muy bu muy mais ka doon financé campagne bi ba léegi nee nañ gars ah, ko parce que sa xarit la may laaj ndax dafa am ku am ndey ba léegi ku mu amul man ba loolu laay laaj euh, euh, monsieur le président léegi may ñëwaat benn muy wàllu impôt bi ah. da xool benn ambulant bu rayante di ambulant ba rayante teg benn société am lu mu liggéey fayee ko lu mu liggéey eh, ma brosu Ousseyn lu mu liggéey fayee ko impôt lu mu liggéey fayee ko impôt léegi nga gis benn tafu sa côté bu tafoo sa côté rek dootul fay impôt da nga koy baal léegi Sidy Lamine Niass bi nga xam tey moom taful sa côté moom léegi moom impôt yi da koy fay léegi may laaj ndax man rek Saint-Ville moom du fay impôt mooy Youssou Ndour rek gars yi gars yi gars ma la léegi yow ku tafuwul rek fisc bi jàpp di ko dóor ba da ragal sax da tey ji yow da ragal maanaam te wax ne man lii laa am wala lii ba léegi monsieur le président may laajte monsieur le ndox mi monsieur le président barke Rasulullah dañuy ñambale sax duñ dem douze suñu taat ko mujj yar dañ ko mujj yar dañ koy ñambale naaj ko ndax lan mois quinze jours amuñu ndox presque ngi jëm deux mois monsieur le président mel ni yow da kenn du wax jamono Abdoulaye Wade bu doon trois jours gars kaas bu doon courant trois jours gars kaas président sa mystique baax na président ba doon ba daan waay non li mënul ne un mois quinze jours kenn amul ndox barki alxuraan ko damay ragal sax dugg si nit ñi te na nga loolu yow si dem yow pays émergent ngay ngay ngay aspiré président loolu métti na trop parce que yéen doo leen ko yëg yéen am ngeen ay ngan di réserve seen kër seen doom yi nekkuñu fi ñu ngi ay Boston comme ni doomu Aliou Ndiaye bi def yor ay milliards am di ñu kookali si Facebook beeg si si YouTube bi ñun doomu baadoole nag ñun ñooy mën naan du ñu naan nekk capital di dund village dem di ges ay teen ah Dakar daal mooy maanaam bâtiment yi loolu rek mais yeew 4 heures du du matin nga yeew di xool robinet tëj le président ne loolu Sénégal émergent ba si loolu monsieur le président si loolu laa lay laaj monsieur le président ma lay ma bu ma jox la quoi monsieur le président bii conseil bu ma jox la parce que xam naa ni nit moom bu faloo buur rek après day maanaam bu yàlla poussé tuuti moom mu mooy yàlla parce que nguur day beewloo nit comprendre naa la nag mais li ma lay wax le président parti bu parti boo xam ne maanaam tey jëw parti bu ndaw ngay ron bi nga dajeeg Ablaye Wade bi nga dajeeg Ablaye Wade Ablaye Wade da nga xajal Ablaye Wade Ablaye Wade lu mu wax dañu naan Macky Sall la sa candidature da mu yàqee nu mu yàqee foofu da koy rey donc yow yàlla yow Macky Sall da nga xam ne nguur yàlla moo koy joxe massification du parti yi nga def joxewul nguur xëcc maanaam ay man i jaañ fada ñi xam ne amuñu rasu wala ay ay ñu doon ngénte fas ay Souleymane Ndéné Ndiaye loolu joxewul nguur boo doon joxe Ablaye Wade du wadda ñooñu fekkoon mën nañ dara dama bëgg nga delloo si yàlla Isainville euh, maanaam xam ne yow yàlla moo jox nguur nga dimbali sénégalais yi parce que tey ji booy dañuy jàng ngi jàng def ay concours dem ba am ay maîtrise café café Touba la ñuy jaay wala ñuy journalier ay madaar déggoolu ma la de yow wu leen teewlu ñu askan bi booy boo laaj bac boo joxe woon si mois quinze députés benn booy du am d'office parce que ñun xamuñu leen yow da nga am quinze députés xamoo quinze députés leen la ñuy def toog assemblée xaar Macky Sall leen dama bëgg tëj Khalifa euh, Sall voté ma loi bi ñu voté ko yow nga ñëw yokkal leen quinze jox leen passeport diplomatique daggal leen salaire trois millions pendant temps booy ndaw yi ñu ngi si mbedd di yelwaan amuñu non monsieur le président barki rasulullah non man man non suma dé suma dé nakhar may ray barki rasulullah suma dé non non non suma dé nakhar ma ray suma dé nakhar ma ray non boy non non li li man ma am di wax man ma am di wax li mais sénégalais sénégalais li lañ xalat bis yi lañuy dugg xol da ngay dugg bis taxaw bay mir dem Dakar di lijjanti policiers yi waron indi droit dóor lañuy dundé ndax sen salaire doyu borom engin borom romb casque ñu jappal oto bu romb sa essuie-glace baaxul ñu jàppala booy jàng bay dee université ay amuñu joob ay wari la ñuy ubbi orange money café ba ay poulailler ba pare poulailler bi du baax parce que épidémie moo leen rey monsieur le président dimbali nit ñi nit ñi sonn nañ cagatu bi day yokk cagatu leen dara moo koy yóbbu crise mondiale crise mondiale rek ay yokk cagatu loolu loolu moom mooy yokk cagatu dëkk moom bu dëgëree foo jigéen ñi yaay seen bopp góor ñi agressé wala ñuy sàcc teg dil mais boo amee xaalis ñu liggéey ñu xam nga ñàkk xaalis day day wàcc ngëm mais président lu yëpp intéressé leen leen intéressé mooy yokk yokk parti yi dem jéem a doxaan këréw diine yi dem Tivaouane tabax fa benn bâtiment dem euh, mel na ñeseen tax ba fa benn bâtiment parce que loolu noonu mën nga doxaan gars yi mais ma def ba léegi ba monsieur le président yëpp pour doxaan xam nga lu ma bëgg nga xam ko monsieur le président man dama xam ni maanaam alal joxewul nguur yow bi ngay falu alal joxul ak nguur nga nga jàppale sénégalais yi parce sono nañ sonn nañ trop ñu ngi dee boo demee feebar dem hôpital amoo xaalis kenn du la faj monsieur le président loolu fu ko teg fu ñu ko teg da nga ne am malade moom quarante degré wala quarante cinq degré wala mu dem nekk dans le euh, à deux deux deux minutes du coma ñu naan ñu ko faj parce que yàgg nañu ne. mooy li ma la wax y avait y avait d' autres y booy yi cent la ñuy nekk par classe bu ñu do bu rek mu maître bi day dee bombe atomique cent personnes ci benn classe monsieur le président loolu noo a non booy ma dee rek ndax xar may rey quoi pendant ce temps ngeen ne fi di xawaa ah, yoo xam ne Isainville jëmawul Sénégal fen fen fen fen fen taalibe yi di yokk xam nga kii la ko doon fekk wala mu lekk ba suur mais xool xool te nee nga da nga loi pour taalibe yi bañ ti non maa ngi maa ngi parce que bii mooy deuxième lettre bi binoon naa la premier première lettre ko gëm naa nga deuxième bi di ko dégg quoi waaw ah, di bëggee ah njab sa waa sama grand bu baaxee romb nii kii moom yàlla ko yàlla jox dara borom xol yërmande la parce que njiit day am xol yërmande da nga yërëm population bi indi eau potable mais dëkk émergent amul ndox dëkk émergent nit ñi fajowuñu dëkk dëkk émergent njàng mi baaxul ay quatre cent personnes par classe dëkk émergent nit ñi fu neex la ñuy di jaay dëkk émergent nga formé nit ki moom ay diplôme amul liggéey a tant de choses yoo xam ne mooy loolu bi may deuxième lettre bi ma koy bind tontu quoi ah, sama gars yi bëggee naa ñëpp bëggee naa loolu